الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي yeesal santaat suñu boroom ñu ñu wërsëgal ñu daje ci ab néegam su siinee jël benn bind te la nga xam ne daa aju ci wàllu fiq fiq mooy la nga xam ne mooy alxuraan ak sunna mi suñu cosaanu diine borom xam-xam ya nañ ko leerale ba ku nekk man koo jëfe ñi ngi ci doon sukkandikoo ci téere bii di minhajul muslim bu abubakar aljazairi rahimahullah ñi ngi ko doon topp ba yegsi ci jëflante yi muamalaat yegsi fi ñuy wax jumlatu uqud ba tey ñu waroon a jël almadatu rabia nga xam ne day wax fi l ijaara naam almadatu rabia fi l ijaara naam tey jii mu nekkoon dimanche fukki fan ak ñaar te la nga xam ne mooy rabiul awal ci 1444 di tombeek le 9 ci octobre ci 2022 su dee mbokk yi gis nañu fi ñu toll ci fil ijaara naam fooy yi moom dañ koy denc ba dem kër ga rek moom ay askar rek la waaw kon fil ijaara day wax taarifuha suñ la ko doon xamal al ijaara hiya aqdun laazim mu ne lool day pas-pas la buy lënkoo ala manfaatin jëm ci loo xam ne dañ koy jëriñoo muddatan ma'luuma ci diir boo xam ne dañ koo xam bi samanin ma'luum ci la nga xam ne pay gu ñu xam la noonu ma ko waxee mbokk ijaara day ëmb li ñuy tuddee location comme ni nga xam ne noonu lay ëmbee emploi yi nit ki te mooy la nga xam ne dañ koo tëral ci ne lii kat muumuma ko waaye nag am naa droit jëfandikoo ko ci diir sàngam nit ka ngay liggéeyloo it danga koy fay ngir mu liggéeyal la mbir sàngam ba mu pare walla mu liggéeyal la ci diir sàngam loolu lépp dañ koy tuddee lii di al ijaara su ko defee la nga xam ne mooy xukmuha lan mooy attee ci location wala jël nit ki di ko fay mu ne al ijaaratu jaa'izatun li qawlihi ta'ala lu mel noonu day lu dagan la ndax la suñu borom wax law shi'ta lattaxasta alayhi ajra bu la neexoon day lii nga jël ci fay te ki nga xam ne mooy yonent yàlla Muusa ba ñu àndee ba mu àndee xadir ñu ñëw ci benn dëkk ñaan waa dëkk ba lu ñu lekk te loolu it nekk àq boo xam ne yàlla moo ko tëral muy nit ki bu tumuranke ñëw ci dëkk diirub ñetti fan waa dëkk ba dañ koo war a taxawu ci du muy lekk waa dëkk ba bañ xadir gis fa benn genre miir wala tappaat boo xam ne ma nga jéngi di waaj a daanu xadir ne Moussa kaay ñu defaraat lii daa di jóg ànd ak Moussa ñu jubbanti ko bam lépp taxawaat Moussa ne ko bu la neexoon laaj ci lii pay comme ñoom dañoo bañ a ganale bu la neexoon laaj ci pay moom dafa daliloo lool rek pour wañe ne kon nit ki am nga droit liggéeyloo nit fay ko ca loolu islam da koy nangu wa qawlihi gis na ñet suñu boroom mu ne inna xayra man istaajarta alqawiyul amin kii di doomu goro Muusa mooy ka Muusa fekki woon ca Madiyana doomam di jigéen ja dana ko bàyyi kii fexeel téye ko mu nekk surga bu ñuy sàmmal ca xam ni ki gën ci koy jël di ko fay mu lay liggéeyal mooy koo xam ne alqawi am na kattan te lañ koy liggéeyloo al amin ca wóor na ca mbokk da ngay xool ñun li ñu yàlla nattoo rawatina Sénégal mooy gis ouvrier boo xamee ni nii boole na ñaari mooy ku man liggéeyam la ba pare ku wóor la loolee mbokk lu jafe la na doon loolu ci ñuy liggéey ak seen doole wala ña ngay jël ci sa magasin ñu lay liggéeyal koo xam ne mën na liggéey bi lool ba pare wóor lool loolu lu jafe la mu ne ko ne kon bàyyi kii bu mu la raw ndax ci histoire bu gudd soxna si xam ne ne Moussa mi borom kattan la ca ku wóor la bu ñu delloo it wa qawlihi mi ngi noonu ala an taajurani samaniya xijaj goro Moussa ba bokk na lu mu waxoon Moussa mooy day dama lay may sama doom bi kenn ci ñoom waaye nag can bi nga koy cani mooy danga may sàmmal juróom-ñetti at juróom-ñetti at dal nga may sàmmal loolu mooy nekk canu sama doom bi kon yàlla it mi ngi saxal foofu ci ne doomu aadama bi mën nga koo liggéeyloo at yu bari ca la ngeen dëppoo imma loo koy jox benn yoon wala loo koy jox nànk-nànk mi ngi noonu wa qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ba tey qaala allahu azza wa jal yàlla day nee na salaasatun ana xasmuhum yowma alqiyaama ñetti nit a ngi day buñ ñëwee yowma alqiyaama man la ñuy dàgg santeel yal na yàlla musul ñu ci boo xam ne ne ëllëg yàlla ngay dàgg santeel mu ngi noonu ka ca jëkk mooy rajulun utiya bi thumma gadara mooy benn waaye ngi daa ñëw waat ci turu yàlla bañ wóolu ko ngir turu yàlla ba mu utiliser ba pare mu wor ka nga xam ne moom la séqanteel suñ borom mu ne buñ yowmal qiyaame man ñii lay dàgg santeel loolu ci xadiisul qudsi te loolu it mbokk day nekk musiba bu tege ci kaw musiba te mooy bu doon truand daa yem rek ci nax nit ki lekk alalam foo sa rendez-vous loolu rek musiba la waaye foo ko fekk day ànd ak ay giñ ak i waat yu tar mi ngi noonu day ànd ak waat yu tar foo fekk truand moo dàq waat kuy waat ku mel noonu nag dafay boole kon ñaari danger yu grave ñaareel bi wa rajulun baa xurran fa akala samana mooy ki nga xam ne daa dajeeg as gor ëpp ko doole rek yeew dem na sama jaam la jaay ko te aka bari woon lool ci sunu jamonoy maam yi loo tax ba war nañu sant yàlla bu baax jamono ji ñuy dund war nañu sant yàlla bu baax a baax a baax ba ko sunu maam yi dund yu metti lañ doon dund dund yu metti daan xëy gut ni nga daan dégg rek naka woykat bi daan waxe da nga daan tëdd ba guddi jot buur tëggum dëndam na jóg leen fii ko fi fanaan dib jaam gis ngeen dangay gis koo xam ne day dox ci mbedd wéet rek ay gaay nu ko tiib jàpp yeew dem marché ba jaay na seen jaam la yonent bi alei salaam nag ne ku def lii day yàlla ngay dagg seen te yawmal qiyaama beneen bi mooy wa rajulun istajara ajiran mooy góor goo xam ne daa jël benn employé bu ko defaral ab liggéey na doon ab maçon la menuisier laam ku muy liggéeyloo ca magasin bam lu mën a doon fastawfa minhu walam yuwaffi ajarahu kam doon liggéeyloo matal lam ko doon liggéeyloo lépp ba pare mu bañ koo fay ba pare mu bañ koo fay loolee mbokk musiba la boo xam ne soo mbokk mbaar xam naa dem na mbaar ñu dindee loo léegi timis am na benn entrepreneur entrepreneur nee na bi mu dee mu ne ma imam dama daw dugg sam néeg dama fecce fecce ba ñàqatuy xëpp ndax ndax rek li ma lekk sama xaalis ba pare tëkkuma mënuluma ko dara loolee mbokk da ngay gis ne musiba la waaye noonu mu nekk musiba it noonu la yow employé bi benn waay ñëw ngeen waxaale la ngeen waxaaloon mu jël ko teg sa loxo ba pare liggéeyaloo ko yowmal qiyaama yàlla ngay dagg sante yowmal qiyaama yàlla ngay dagg sante loolee mbokk di mbir boo xamoon ne nii tous les ouvriers et les employés ak ñu leen di employé yëpp waroon nañ ko xam boo yoree sa téere mu ni والاستئجاره صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر بكنا نم جلوون أب أمبلواي ينتهي بمي عندك أبو بكر في هجرتهما جمعنا بني قداي جوغا مكة جم مدينة ندادي أمبلواي رجلا خريطا mooy koo xam ne jidd la mooy ko xam yoon yi nu mu koy defee من بني ديل يرشدهما إلى ضروب المدينة ومصالحها koo xam ni dañu leen mën a jubal te la nga xam ne mooy yoonu Madina ak la nga xam ne moom mooy ay jaaruwaayam yi ñuy jaar te xam ngeen rasul sallallahu alayhi wa sallam bi muy gàddaay boobu waa Makk décidé nañ ne dañ koy rey ba ko suñu borom yàlla xamalee loolu mu dem làqoog Abubakar ca xuntima diirum ñetti fan gannaaw ba la fa jóge dem madina waa makka daa di teg téeméeri gileem ne ku ñu indil bopp muhammad wala bopp abubakar daañ ko jox téeméeri gileem ca la yonent bi alei salaam jële woon waa jooju nga xam ne donte ne ab yéeféer la waaye ko wóor la gis ngeen te it loolu moo amoon démb da nga naa gis yéeféer yoo xam ne nii dañoo wóor loolu moo tax ba Makka amul woon naafiq ñi ma saan dugg ci lislaam yépp jeex na ndax dañoo wóoroon bañ ko fayee moom moo leen jaarale ci ay ruq-ruqaan yoo xam ne waa Makka mënuñu mënuñu leen gis ba ba yóbbu leen fële nga xam ne muy Madina loolu it kon ba tey ci sunna jàngale na loolu léegi nag shurutuha ana yan charte mooy tax loolee baax soo déggee charte mooy loo xam ne bu manqué mbir ba yàqu na mu indi ci ñetti charte bi ci jëkk maarifatul manfaati ka sukna daar mooy ñu xam la nga xam ne mooy lay jëriñ te ñu koy luye lu mel ni masalan kër gu ñuy dëkke aw xiyaatati saw bi masalan wala waa ji di tailleur boo xam ne da nga koy ñawloo yére is hiya kal bay ndax loolu nga xam ne mooy luye service doomu aadama bi wala matériel moog njaay ñoo yem wal bay u la budda fihi min maarifati al mabi kuy jaay fokk ñu xam la ñuy jaay lu mu doon ay kon il faut ñu déterminer ne kii kat lii la lay liggéeyal wala kër gi nii la wala oto bi nii la wala ila axir loolu il faut ñu xam ñaareel bi ibahatul manfaa la ñuy jël di ko luye wala di ci liggéeyloo nit ki day doon lu sharia daganal fala yajuz isticjaaru amatin lil wat du dagan mukk ñu luye jàmbu jigéen ngir di mën a ànd ak moom ci lal kese te loolu arab yi dañ ko doon def aw imraatin lil ghinaai aw nawhu masalan wala luye jigéen bu lay woyal wala jigéen bu lay jooyal bokk na aaday arab kilifa bu deeyee jooyee dafa war a takarnaas dafa war a kawe ñi amul nag ñu leen jooyal dañuy dem luye ay jigéeni caameen ñoom ñooy ñëw ci kër gi di yooxu di yooxu loolu muy wone ne ci kilifa la aw ardan li tubna kanisatan aw mahmara kenn amul droit di luye suuf boo xam ne kan kay luye dafa bëgg a tabax ab église wala mu bëgg fa tabax baar te loolu it sa kër doo ko luye mukk boo xam ne dafay ñëw di fa jaay sàngara ñetteel bi maarifatul ujra li qawli abi said al qudr abi said mooy fokk ñu xam la ñuy fay lu mu doon ndax kii di abi said al qudri daana wax ni naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an istijaaril ajir yonent bi tere woon na ñuy employé ab employé ay jël ab surga di ko liggéeyloo xatta yubayyana lahu ajra lu dul ni dañ koy leeral li nga xam ne mooy ajruhu su liggéey bi pare ñaata lañ koy fay waaye du ngeen ñëw rek lii nga may defal lii nga may defal ñu ne d'accord mu commencé liggéey ci xamul li nga koy fay lu mu doon kon fokk ñu xam liggéey bi lu mu doon li ñuy luye lu mu doon fokk ñu xam fay ba lu mu doon ak ni ñu koy fayee amma bu dee la nga xam ne nii moom mooy ñeenteelu mbir ba mooy ahkaamuha ana yenn atte la ñu mën a gis ne dana am ci location wala ci employé nit bi ci jëkk jawaazu istijaari muallim li taalim ilmi aw sanaa dana dagan nit ki ñu embauché mooy louer service kuy jàngale ngiree mu jàngale xam-xam wala jàngale liggéey mooy ñett yi nga fay ko mu jàngal la wala xam-xam wala mu jàngale liggéey li ma faa ñu ngi noonu li ma faa daati annabi sallallahu alayhi wa sallam baada asra baada asra badrin ngiree yonent bi kat jotoon na lenn ca la nga xam ne ñooy ñañ jàppe woon ca xare badr bi taalimihim adadan min sibyaani almadinati alkitaaba ci ñu jàngal lenn ci ndawi madina yi nu ñuy des ba bind keroog ba ñu xaree badr ba pare dañ faa jàppe juróom-ñaar fukk yi yéeféer ñu laaj leen xaalis bu ñuy war a joxe ña ci amul xaalis ca mënoon a bind mën a liir ku nekk ñu ne la boo fexee ba fukki xale ci waa Madina nga jàngal leen bañ mën a bind mën a liir ñu jotul la nga dem loolu it dañuy woon importance bi islam joxe woon ci xale yi ñu leen di jàngal seen diin ñaareel bi jawaazu istijaari shaxs bi taamihi wa kiswatihi mu ne dana dagan ñu employé nit lañ koy fay mooy nga jox ko fu mu dëkk di ko dundal su ko defee mu lay liggéeyal nga gàddu dundam ak dëkkuwaayam di qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wa qad qaraa taasimin taasimin yonent bi muy jàng taasin ba qissa Moussa nekk ci shuura mu ne xatta balaga qissata Moussa ba mu demee ba yegg ci xissa Muusa inna Muusa aajara nafsa Muusa day demoon na joxe boppam comme surga samaaniya xijaj juróom-ñetti at juróom-ñetti at aw ashra wala fukk ala ifati farjihi wa taami batnihi ngiree mën a fekk payam ci soxna bañ ko may mën a it am loo xam ne nii da koy lekk al muhim xadis boobee ixtilaaf am na ca waaye lam bëgg a wax rek mooy loolu luy mën a nekk la allahuma yàlla dogaloon na yàggul dara benn kaa bu ma ci jot boo xam ne nii moom moog patron loolu la ñu séq danaa la jox néeg danaa la jox dund waaye nag sëñ tam nag bëgg a dem indi soxna indi ci biir kër gi nag loolu it indi jafe-jafe bu rëy ndax soxna si it dafa am yeneen soxla yu bokkul ak li li li li jëkkëram si ñeente ala kulli xaal ci gàttal loolu mën naa nekk waaye nag rawatina jamono ji ñuy dund jafe na doomu aadama mën a dund rek yem ci fu muy dëkk ak fu muy lekk te soxlawul xaalis sunu maam yee soxlawuñu woon xaalis mën nga wax nekk mën ngaa toog ay at sax doo soxla dara ci xaalis amul fay paas jëm amul ordonnance booy jënd amul lenn li nga soxla daal looy lekk ak loo foo dëkk am maa nag sunu jamonoy tey jii mbokk mbir yi dafa changé loolu moo tax ba toujours li ñuy wax ndaw ñi mooy texte yi nga xam ko nga dégg ko moo ko gën nga comprendre ko moo ko gën te mooy li xewoon jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkul ak li xew suñ jamonoy tey looloo tax la ëpp ci sharia suñu borom bu tey wax danaan bil maaruf maaruf mooy la ñu xam muy aada ba li valable Sénégal mën na bañ a valable Mali li valable Dakar mën na bañ a valable Fouta loolee ñu bàyyi ci xel bu baax juróomeel bi wala ñeenteel bi wala boog ñetteel bi mooy ci jiim sixatu istijaari daarin ila muddatin muayyana mooy dana wér ci nu luye ak kër ba ci dig boo xam ne dañ koo xam tudd ko yaxlibu ala zanni baqaa'uha ilayha boo xam ne not na ci suñ njort ni kër gi dana yegg foofu ñu ngi noonu kër gi dana yegg foofu fan yi rek maa ngi wax ak benn mbokk mu ne dafa luye kër pour dix ans nee na kër gi dix ans la ko luye ndax ay yu bari yu mu fa liggéeyaat yoo xam ne da caa investir mosu ñu teg borom kër gi dix ans nag dama fay location loolee kon bu ñu wóoree ne kër gi kat moom mën na fee sax dix ans dara nekkul ci ñu signé location dix ans i nga noonu bokk na ci isa aadarahu shay'an thumma mana'ahu su dee da ko luyee dara gannaaw ba nag mu tere ko min al intifaa'i bihi mudda ci mu jëfandikoo ko ab diir saqata min al ujra dana rot ca pay ga bi qadri muddatil manfa muddatil mana'i mooy lu toll ni diir ba mu ko te tere woon mu jëfandikoo ci loolu yu mel ne tey jii waa ji luye woon nit ki kër gannaaw ba mu ñëw mu ne ko daal kër gi dama koy jëlaat pour deux mois te fekk dañ ko luye woon un an deux mois yooyu dañ ko ci génn ci luye woon nit ki oto pendant une semaine gannaaw ba mu jël ko ci am lu mu ko jël di ko jëfandikoo ci ay jours dañ ko cay génne almuhim mooy lépp loo xam ne nii xañ nañ ko ko ca la ñuy war a jëfandikoo dañ koy génne ca pay gam waroon a fay mi ngi noonu mu ne nag in taraka al mustaajir su dee ne ka nga xam ne nag moom moo luye woon kër ga wala luye woon service waaja mi ngi noonu kam du liggéeyloo moom moo bàyyi al intifaa min nafsi ci jëfandikoo ko ci boppam fa alayhi al ujratu kamila ku mel noonu day fay fay ba ba mat sëkk masalan nga ñëw ci kër jàmbur ngeen signé contrat location mu luye le kër gi yow nga toog dëkkoo ca kër ga wala nga dëkk ci ab diir dem sa yoon pendant des mois del siwaat loolee sa mbir la maadaama jëfandikoo ko sa mbir la oto bi nga luyee woon ba pare wëlbati ko gaare ko loolu sa mbir la loolu mi ngi noonu boo yore sa téere ba tey mu ne tufsaxu l ijaratu bi talafi l ayni l muajjara la nga xam ne mooy location ba day des na ko firi dindi ko su dee daa yàqu la nga xam ne moom lu ñu luye woon ka suquuti daar mi ngi mel ne kër gu ñu luye woon mu màbb aw mawti daaba wala daaba boo luye woon giléem wala fas mu xëy dee masalan wa alal mustaajir ujratul mudda su ko defee ke luye woon day fay diir bu tolloog al muddati saabiqa diir ba jiitu woon alati intafaa fiha bil ayni al muajjara loo xam ne jëfandikoo woon na ko te la nga xam ne mooy mbir ma mu luye woon dañuy calculer lam fa jote nekk kër ga la oto ba la daaba la loolee lay fay la ca des moom dañ ko koy delloo su doon fayen na ko bokk na ci atte yi am ci loolu ba tey man istaajara shay'an ku luye benn mbir wala liggéeyloo benn mbir fa wajadahu mayiban gannaaw ba mu gis ne man kat lii ma luye ay sikka ci nekk fa inna lahu lfasaqa dana ko ñeel te mu firi lam fasante woon maa lam yakun qad alima bil aybi lu dul daa fekkoon ne moom xamoon na ayib ba ca nekk wa radiya bihi mu gërëm ko ibtidaan fa ñuy sos mbir ma wa in intafaal bil muajjar bu jëfandikoo ca lañ luye woon muddatan ci ab dig fa alayhi ujratuha su boobaa da koy war mu fay lépp loo xam ne luy digga woon na ko maadaama ayib ba muy wax moom ba mu koy luyoo xamoon na ko ñu ngi noonu soo yoree sa téere ba tey mu ne al ajirul mushtarak su dee ne lii di nekk employé bu ñu bokk kal xiyaatati lu mel ne ñoo bokkoon di ñaw wal wal wal xidaat ñoo xam ne dañoo bokkoon nekk ay tëgg yuy defar ay weñ yadmanu ma atlafahu naam al ajirul mushtarak mooy liggéeykat boo xam ne du yow lay liggéeyal yow kese da lay liggéeyal di liggéeyal keneen moom place sama nekk rek mi ngi sa service mi ngi ci service su keneen ñépp a ko bokk ngi mel ne tailleur bi nekk ci atelier nekk tailleur wala xaddaat ki nga xam ne mooy sëgg bi yadmanu ma atlafahu bi fi'li ku mel noonee day lépp luñ koy liggéeyloo mu yàq ko ci jëfam loolu da koy garanti da koy fay la ma daa min dukaani amma nag la nga xam ne dafa sànkoo ca magasin ba mu nekk di ci liggéey rek ci atelier ba mu nekk di ci liggéey lu mel noonu kenn du ko ko toppee ngir mu fay ko li annahu xiina isin yakunu kal wadia ndax loolu day mel ni dénkaane day mel nañ koy considéré dénkaane yow mi fi indi sa tisi wala yow mi fi indi woon say weñ ñu defaral la ci ay kaddi rek yu dema noonu day mel ni dénkaane wal wadaiu la tudmanu ca ndénkaane kenn du ko garanti bu bu dee dafa réer wa ma lam yufarrit saahibuha lu dul dañoo gis ne waa ji da koo sàggane tey ki jëloon mbiram ñëw dénk ko nit moo denc ko nam ko war a denc yàlla dogal tolof tolof am te mu yàqu wala yàlla dogal ñu sàcc ko ku mel noonu kenn du ko ko fayloo lu dul ñu yëg ne moom kat moo sàggane mbir mi heure bu ñu la joxee mbir nga sàggane ko même bu doon dañ la koo dénk da ngay fay amaa bu doon jaarale nga ko fa nga ko war a jaarale mbiri yàlla ñëw su boobaa kenn du la ko fayloo mi ngi noonu mu ne wala ajirul xaas bu dee nag emploi boo xam ne da nga koo jagoo ka man istaajara shaxsan mi ngi mel ne ku embauché woon benn waay yaamalu indahu xaasa moom day ñëw di ko liggéeyal moom kese laa damaana alayhi fi ma atlafahu ku mel noonu lam koy liggéeyal ca kër ga amul benn garanti boo xam ne da ko tey def maa lam yusbit annahu farrata aw taadda lu dul dañoo dem ba yëg ne moom kat moo gàtteñ lu ba liy yàqu wala moo jiggi dayoo ba liy yàqu waaye bu dee daal la nga xam ne ni moom liggéey ba jaaral na ko ci yoon kenn du ko toppee loo xam ne da ca yàqoo mi ngi noonu mu bokk ci loolu ba tey tulzamul ujra bil aqd lii nga xam ne moom la ñu war a fay ci luyee kër ga wala luyee ka lay liggéeyal loolee dafay lënkoo ca mooy nekk bor boo xam ne waa ji gàddu na ko keroog bañ fasantee contrat bi wa yata'ayyanu daf'uha ba'da istifa'il manfa waaye nag dana doon loo xamee ne ni moom day nekk lu tënku lu ñu war a def su dee ne waa ji jot na la nga xam ne mooy njëriñ ba taxoon mu jël ko ca lam doon jëfandikoo ca kër ga wala ca lu mu mën a doon aw tamaamil amal wala ba liggéey ba pare illa an yakuna qad ishtarata daf dafuha inda al aqd lu dul ni dañoo chartoo ci ne day fay pay gi jamono bañ koy fas te kon mi ngi noonu waa ji nga jël employé ko ngeen waxaale dama lay fay temps bu liggéey bi pare temps boobee kon bor la boo xam ne mi ngi ci yow mën nga ko koo jox léegi bu la neexee it da ngay bàyyi ba liggéey bi pare nga dog koo fay ndax ci loolu nga koy nga lay yeyoo àq bi loolee kon noonu la amma nag bu dee waa da lay liggéeyal wala ka lay luye këram daf na la ah man kat bala nga see dugg wala bala maa commencé liggéey bi da nga may fay bu dee dañoo chartoo loolu su boobaa da ngay gis ne dañ koy jox la nga chartoo ak moom li xadiisi nabi sallallahu alayhi wa sallam ngir yonent bi alayhi salaam doon na wax lakin al aamil bu dee ne kay liggéey innama yuwaffa ajruhu ida qada amalu ku mel noonu nañ ko jox payam heure bu jeexalee ab liggéeyam te loolu it mbokk mi ngi noonu képp koo xam ne da nga koy liggéey liggéeyloo fu liggéeyam pare payam war naa tega ci loxoom fu liggéeyam pare yow xamal ne war nga ko fay mi ngi noonu bokk na ci loolu ba tey lil mustaajir xabasul ayn xatta yusta xatta yustafiya ajrahu ka nga xam ne nii moo doon liggéey su ko neexee lam doon liggéey mu téye ko ba baa ñu koy jox payam ida kaana amaluhu za taasir fi l ayni su dee ne jëf joojee dana jeexital te la nga xam ne mooy mbir bañ séqoon kal xiyaati masalan lu mel ni ab tailleur masalan tailleur bi da ngaa ñëw di ko liggéeyloo di ko ñawloo mbubu mu ñëw mbub mi ba mbub mi pare mu ñëw nga naan ko waaw tey ëllëg si biir goon su ko neexee téye yére bi ah bala ma laa jox yére bi nga fay ma loolu mi ngi noonu bépp liggéey boo xam ne nii waa ji mën na koo liggéey ba pare téye ko ngir ñu fay ko islam du ko wax ci loolu dara mu ne nag wa in kaana la tasira fiihi su dee ne moom loolu amu ci benn jeexital bu mu ca mën a am kaman na ujra ala xamli bidaa lu mel ne koo xam ne dañ koo fay ci muy yenu marchandise yóbbu ila makaan yenu na ko yóbbu ku mel noonu yóbbu na ko ca place ba kaza fa laysa lahu xabsuha bu demee nag du dem naan day téye marchandise ma bal yuwassiluha ila mahal ila mahalliha da koy yóbbu ca place ba mu ko war a ye yemele wa yusaalab bi ajrihi gannaaw ba nag mu sàkku la nga xam ne mooy payam loolu kon day wax rek ne ci wàllu googu noonu lu ko tëralee donte ni ñuy fàttali kenn ku ñu dëkkaloon yal na ko yàlla yërëm xel mi dafa xaw a naqari mu dem ci garage bi am ko ko yenn loo benn saaku ceeb te ndeysaan mooy saaku cent kilos yu jëkki mu yenn saaku ceeb bi ñëw indi ko ba ci biir dëkk bi ne waa ji booba yàgg na fukk dërëm waa ji na ko de juróom laa la waxoon mu ne ko fukk dërëm laa wax mu ne ko juróom laa la waxoon la bu yéen war saaku ceeb bi delloo ko ba garage ba ndeysaan def ñaari duubul ñaari duubul coono waaye ala kulli xaal mbokk li ngi noonu ala al muhim loolu la wax ci wàllu googee amma atte bi mujj a wax mooy man aalaja aw daawa maridan bi ujra koo xam ne dafa ñëw di faj wala muy joxe garab ñu noonu di faj na doon ay damm damm laam yu kenn xamul wala muy joxe garab daawaa joxe ay garab bi ojora ci pay buñ koy fay ولم يكن قد عري قد عري قد عرف بالطب te moom day kenn xamewu ko woon la nga xam ne moom mooy faj mu jël risque boobu fa atlafa shay'a moo daa di yàq dara na doon bakkan la wala tànk la wala lu mën a doon fa alayhi damanuhu ku mel noonu day fay la nga xam ne mooy assurance loolu da koy fay lu tax mooy moom nekkul koo xam ne dañ koo xam ci médecine loolu dafay wane ne kon moom la yonent bi alayhi salaam di wax di qawlihi sallallahu alayhi wasallam mu ne man tatayya man tatabbaba koo xam ne nii dafa nekk faj fajlu walam yu'lam minhu tibb ca kenn musul xamatoom ci faj fa huwa damin ku mel noonu day gaddu lépp loo xamee ni nii nekkoon na di ko yàq ca la nga xamee ni nii moom la lor ca doomu aadama ya muy wane ni kon ki nga xam ne moom yàlla dogaloon na mu nekk fajkat bu ñépp xam bari na lool ñum faj ñu wér ña nga xam ne dañoo ñëw mu faj leen far lor dal ca lu mel noonu kenn du ko ko toppee mi ngi noonu ci wàllu googu sunu ndaw ñi bokk na fitna bi nga xam ne nii bari na ci ñoom lool mooy ñàkk am fenn foo xam ne dañ fay xëy ki nga xam ne dafay liggéeyloo doomu aadama bi rawatina ki nga xam ne ab jurit la nga koy liggéeyloo loolee nga koy fay ci sarax yi gën a kawe la bokk loolu ndax ki nga woy liggéey la war koo fay nga jël pay googee joxoo ko dem sarxe ko xam nga ne def nga njuumte bu rëy loolu ci tuyaaba yi gën a màgg ci tuyaaba yi loolee da ngay gis ne ci la ci la bokk bokk na ci itamit ci masala yi nga xam ne ni jàng nañ ko mooy ci li ñu nettali ci xissa Muusa day wane ne la nga xamee ne ni mooy ak can mën naa nekk alal di ñuy joxe canit mën naa nekk effort boo xam ne dañ koy def looloo tax yonent yàlla Muusa effort am la def loolee nekk ak can ba boroom xam-xam yi dañuy wax sax ne da ngay gis ne can bu chére cher la joxe ndax tey buñ doon xool SMIC bi mooy salaire bi gën a tuuti boo xam ne dañ ne kenn waru koo passé au Sénégal xam nga fu mu toll léegi sax waaye xoolal rek nga buñ doon tey ji cinquante mille francs par mois ça fait six cent mille ci année bi am déet six cent mille Moussa ñu ne def na fa dix ans loolu day nekk presque six millions almuhim can mën naa nekk effort moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoom am na koo xam ne nii la tax mu may ko soxna mooy jàngal ko li nga xam ne nii xam nga ko ci ci alquranul karim allahuma lu dul ñu bañ a fàtte it liñ doon wax mooy jamono day dox lii valable ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalaam mën naa bañ a valable ci ci yeneen gannaaw ba yi tamit ki nga xam ne dafay jóg di liggéey gàllawaay na jiital ngërëmal yàlla jalla waala bokk li liñ jàng ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nga xam ne dafay liggéeyloo nit ki fayu ko nee na yowmal qiyaama yàlla lay dàgg sante kon def na lu bon lu garaaw waaye kon bu jëlee fay waaj lam ko fay rawatina lam ko ca dollil ba seral la nga xam ne mooy xolam loolee mbokk da ngay gis ni tuyaaba ju rëy rëy rëy la du koy ñeel ci kanamu boroomam yow mi nga xam ni da ngay employé xamal ni bokk na ci jaamu yàlla mooy ngay liggéey ca yàlla tax yonent bi alayhi salaam daana ko tuddee al amilul muhtasib ko ummi Muusa nee na ki nga xam ne dafay liggéey liggéey bi mu seet ci ngërëmal yàlla mu ne ku mel noonu moog yaayu Muusa ñoo yem ndax kat yaayu Moussa comme ni ngeen yàgg a dégg xistaam ba ka soxna Firawna fore yàlla xañ munta nàmp benn jigéen yàlla da ko delloo ci yaayu Moussa doomam yoraat na ko weer wi dee ñu jox ko salaire gis ngeen loolu it kon bu loolu amoon dana yombal lu bëree bëree bëri ci liggéeykat yi coono ba ñu daj ci liggéey bi dana woyof ci ñoom ndax du ñu xool rek liñ leen di fay dañ ci xool ngërëmal yàlla waaye bokk na it jalgati gu bëri goo xam ne dañ koy jalgati da doon ca maçon ya la ca mécanicien ya la ca lu mu mën a doon suñu xamee ne kat ñoom yàlla mi ngi leen di saytu ca ka ñàkk a jaarale mbir bi ci yoon da leen di jural merum yàlla ca jaarale ko ci yoon da leen di jural pay ca yàlla avant ñu leen di fay ci lii mbokk yi yépp da ngay gis ne société boo xam ne nii ñay liggéey ak ñuy ak ñi leen di liggéeylu yépp dañoo jiital yàlla société boobu fokk yàlla barkeel ñu fàtte it ba ñuy dal dars bi yonente bi alei salaam doon wax ne ñaar ñu séq benn mbir suñu borom yàlla dana ñëw ñetteel leen fii ak amul ku war moroomam loo tax kiy liggéeyloo nit ki jiital ci ngërëmal yàlla kee ji liggéey si jiital ngërëmal yàlla pacte boobu mooy loolu ñu jëflante fokk yàlla barkeel ko lii daal kon mbir la yoo xam ne nii war nañ ci bàyyi xel bu baax xam ne li ñuy dégg suñu réew yi waruñu koo dégg ci réewum julit mooy ay nit liggéey ay weer kenn fayu leen loole kenn waru koo dégg ci réewum julit mi ngi noonu xam naa incha allah dana des lu jege ay huit minutes ngeen la mbokk yi amoon lu aju ci dars biñ doon def wala ci yeneen laat yoo xam ne dafa génn dars bi wallahu subhanahu wa taala alam naam mu ne waaw waaw wala kulli xaal nisaab moom mooy tey bu doon tene ne dugub la mooy tool boo xam ne buñ ko génnee dana mën a génne six cent kilos suñ ko bàccee dana mën a génne six cent kilos dugub doonte ne ne nisaab bi kenn du ko xool ci ci kilo yi ñoo ngi koy xool ci kem bi ay saa lay doon saa mooy pot boo xam ne dana ëmb deux kilos bu doon ceeb loolu dugub ñu mën ca nat la nga xamee ne nii moom mooy ñetti téeméer mooy nekk six cent kilos ndax al wa wax mooy cosaan bi wax mën nañu wax rek mooy li ñu daan wax ak sendal boo xamee ne nii daan ci mën a def juróom benn fukk saa juróom benn fukk saa yooyee yeneen ti bu nekk ci am juróom kooku muy gën a zaka boo xoolee cinq fois soixante mooy trois cent mooy trois cent saa trois cent saa yooyu à peu près mooy six cent kilos bu doon dugub ba loolu la ñuy gën a zaka kon fokk ki nga xam ne dafay ñaar ñoo xam ne dañoo siq tool bi képp ki kenn ci ñoom am lu tool noonu gannaaw bu ñu doog ko gën a zakat wallahu alam naam bismillah ah ah waaw waxoon nañu bu dee ne ay jardin la gën a not ci borom xam-xam yi mooy lépp lu jëm ci ay fruits ak légumes sarax lañ ciy génne waaye zakat waru ca sarax lañ ciy génne waaye zakat waru ca mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ah waaw gerte yi day suñ mag ñi tombe woon ak moom dañ koo boole ci li ñuy mën a génne zakat ndax gis nañ ne mënees na koo denc ren ba déwén yaa ngi dégg te am njaayeen bu xiifit mën na cee fatam xiifam loolu kon moo taxoon mag ñi boole ko ci li nga xam ne dañ koy génne zakat mi ngi noonu su ko defee yow bu doon te ne da nga am ab tool te tool boobee saa yi nga xam ne dañ koy génnee ci murum koor man nga cee def ñetti téeméeri saa nga xam ne à peu près moo doon nekkoon six cent kilos dañ naan kon zakat war na ci tool boobu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ndax booba te waa ji sant ko ko waaw la kulli xaal waa ji ñëw fekk ab liggéeyu jàmbur mu ñëw liggéey ko te waa ji sant ko ko ah kooku moom waa ji yorulu ko pay waa ji yorulu ko pay su doon te ne ne fay na ko ci mbaaxam ci mbaaxam la koy fay waaye yorulu ko pay am na nag lu ñuy nar a jàng bu ñu fi yàlla yombalee dimanche bi di ñëw mooy li ñuy tëdd aljaala ah waaw moom la ma naa de mën liir naa benn kii garawaay.
waaw kenn xamul ñaata kii la benn ba mu sar ñëw ci tool yëpp.
waaw waaw waaw fekk bu mu set rek ma ne ko waaw lii nag mu ne ko su baaxee da ngay fay ñi jël la ko rek léegi dama dem baax.
ah, waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw loolu moom moom kay lu mën a nekk la xanaa kay li ñuy wax mooy ndax war voilà voilà voilà boo boo boo boo ko defee ak caabi léeg la mu ne la waaw loolu loolu la waaw almuhim almuhim almuhim loolu loolu loolu li ñu ciy wax rek daal moo di ne nit ki du a du du am àqu laaj fay lu dul dafa jëkk a jëf tëral fay ga avant mu koy liggéey waaye doo fekk nit ki yor am liggéey rek nga ñëw liggéey ko pare na ko da ngay fay am na lu ñu nar a jàngi dimanche bi ñëw incha allah lu mel noonu dana ca xaw a jege mooy dañuy tudde jaala mooy ki ne masalan sama sama gileem day wala sama oto day dafa réer képp koo xam ne indil na ma ko day danaa ko jox cent mille waa joo xam ne xamoo ko moom muy xëy xëy rek indi oto bi ne leen mi ngi nii ku mel noonu même bu dee waxante wu leen woon mais wax ja nga waxoon en général ne ku def lii ma jox ko te def na ko ku mel noonu da nga koy fay loolu nag bokkul ak loo xam ne ab liggéey la bu taxaw noonu rek wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah na ah waaw naam bismillah waaw waaw waaw xam nga da cee waaw waaw mooy mooy yor biñ ko yor ak dundal biñ ko yo- dundal xam nga moo tax ñu indi xadis boobu mën a la ixtilaaf am na ci borom xam-xam yi am na ñoo xam ne dañ na xadis bu yorul waaye li ñuy bëgg a wax rek moo dina ne moom ba mu koy wax di ko may jabar tudd lu ko dund gi ak ak dëkkuwaay bi dana ko sàmmal ma fukki at ma may la sama doom bi loolee kon dañuy gis ne mën na am sax Moussa dëkkul ca kër ga mën na Moussa du lekk ca kër ga li ñu islam xamal daal mooy sàmmal ma fukki at ma may la sama doom bi kon fukki at yi mooy canu doom bi loolu la ñu yàlla jàll ba ala wax wallahu alam naam bismillah waaw rangu wala kulli xaal ki nga xam ne dafa ñëw di bëgg marchandise marchandise boobee yow amuloo ko mën nga ko wax ne marchandise mën naa koo indi su ma ko indee temps laa la koy jaayee islam li ñu bay rek mooy jaay loo yorul nga jël xaalisam jaay ko ko bu dee yaa dem jëli rajo bi ñëw jaay ko ko ca fekk ne jël na rajo mu dox la xaalis loolu duñ ci wax dara am naa ka nga xam ne yow da ngay jël ab rajoom loolee moom mar commerce bi yéen a ko bokk moom bu la wóoloo ci jox la jox la rajo bi nga dem boo jaayee bu jaree moom mu am ci bénéfice bu jarul li nga delloo si kaab rajo loolee moom du ñu wax seen diggante dara mi ngi nekk te li ngeen siq yéen ñaar wallahu subhanahu wa taala aalam naam yaakaar na waaw waxtu bi sax jot na kon mbokk yal nañu yàlla defal tawfiq fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain